président mi mel ni euh, wax nga ko c'est inacceptable président bu ñu remonté li nga xamante ni moo di par rapport ak euh, historique bi euh, day mel ni tamit je veux dire que yéen yaa ngi yàgg dénoncé ba Macky Sall accédé ci pouvoir ba léegi ay tracasseries nga xamante ni ñu ngi koy def di ko jëmale ci ci way ku jéegi loolu bu seet Sénégalais yi bu ñu toppee ci suñu raisonnement ñu dellu gannaaw tuuti dinañu xool ni avènement wu Macky Sall ci bopp nguur gi lu weesu ñaari at yi mu nekk ci bopp nguur gi ba fi tey ji dafay am ay jëf yoo xamee ni ay actes yoo xam ne daf koy posé benn bu si nekk di musiba ci état de droit benn bu si nekk di musiba ci sécurité ak égalité équité bi Sénégalais yi war a am ñoom ñëpp yam ci kenn. ma fàttali askan wi ni li yàq mbirum mooy keroog ba mu jëlee engagement ni mandaawam juróom-ñaar la daf koy wàññil boppam daf ko juróom. Hmm. bis boobee la dugal ci nit ñi ak dugal ci réew mi di kàddu ak commencé nag di mhm. non seulement weddi kàddu gi mhm. yàq espoir bi nit ñi amoon ci moom mais ensuite commencé jëf ay jëf yoo xam ne ni day feeñal ni moom tey jii ci yeneen posture ak yeneen taxawaay yeneen gis-gis la mhm. ndax weddi kàddu googu moo tax ba muy dem ca élection ya gannaaw sept ans ya ba mu matee dugal na fi référendum dugal na fi ay carte électeur yoo xam ne kenn xamul fu mu jógee dugal na fi ségrégation ci jot ci sa carte électeur ndax citoyen yëpp dañoo dem ba mu wér ni yematuñu si jot suñu carte électeur pour mën a doon électeur hmm. yemul foofu mu dem ba nga xamee ne acteur politique yi dañoo xam ni léegi nag ki mu bëgg rek mu doon candidat kooku rek mu am possibilité mu doon candidat hmm. ñeneen ñi nga xamee ne bëggul mu ñu doon candidat benn dina leen éliminer bi hmm. dina leen éliminer ci jaay leen doole génn leen réew mi wala mu éliminer leen fekkete lu juut élection yi tuumaal na leen jël IGE indil leen yóbbu leen kaso ti ko mm-hmm. exactement ndax kaaw Khalifa sàll dafa niroo à tout point de vue ak kaaw Ousmane Sonko leen wutale rek mooy bunt yi ñuy dugale yu ñuy dugg yi ñuy tàmbalee tooñ bi kee dañ ko tuumaal ci wàllu un milliard huit cent millions ci koppar réew bi kii ñu instrumentaliser beneen affaire u mœurs mais finalité bi mooy éliminer un adversaire politique may laaj sénégalais yi est-ce que effort bi ñu def yépp ci réew mi coono yi nga xamee ni suñu ay maam defoon nañ ko lu jiitu ñuy ñëw sax ci indépendance pour samp jàmm ci réew mi samp respect ak mbokkoo ak mbokkoo ci biir Sénégal yi est-ce que après les indépendances effort yu ñu def malgré les événements de 62 63 est-ce que coono gi ñu daj avec les événements de 68 est-ce que tour le combat bi ñu def en 2000 pour am la première alternance dolliwaat beneen combat bu ñu def en 2011 pour pour fexe fexe Sénégal bi nga xamee ni moom la ñu gëm te moo tax ñuy liggéey boobu ba léegi mën a réaliser wu est-ce que effort yooyu yëpp dañoo war a tëdd suñu kër di nelaw kenn ab jaambur boo xamee ni moomul réew mi donn ko simple citoyen la boo xamee ni ñun ñoo ànd ak moom jox ko doole pour mu doon président de la république est-ce que war nañu nangu kooke yóbbu ñu ci sàgganteem yóbbu ñu ci ay dérive am. yóbbu ñu ci ay jaay dooleem ci président Macky Sall ànd tànn ngeen ko àndandoo moom ci 2012. bien évidemment tey jii avec le temps on, on peut que ni bu doon tey mooy démb ñu xam ne fii lay teere xaw ma kan moo koy jox kàttan mais wóor na ma ne Sénégalais yu bëri ñu ci bokk mais loolu weesu na c'est li xew tey jii. nga xam ne mooy conséquence su démb googu moom laa bëgg ñu analyser ko ba pare mu war a indil ay taxawaay yu bees ñun dañoo bokk réew mi Moustapha